إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonent yàlla muhammad mooy jaam bi mu yónni woon ci ñun moom dong yeeyoo jàngale ne nii la ñuy jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk jullit suñu xutbab tey bi mi ngi jëm ci fàttali jullit ñi ne la nga xam ne moom mooy gën a màgg lu ñu war a ittewoo ci kaw suuf mooy fexe ba am pas-pas bu sell fexe ba sàmm pas-pas boobu ba baa ñuy dajeeg seen boroom mbokk jullit suñu boroom yàlla day xéewal na jaam yi xéewal yoo xam ne nee na su ngeen daje woon di ko bëgg a lim mënu leen fexe ba matal ko wane na it ne xéewal yooyu da ko sëmbaxtal matal ko ci ñun ca la feeñ la ñuy gis ak la nga xam ne nëbbu na ci gisuñu ko xéewal yooyu it mu daal di farataal ci ñun ne nañ ko ca sant nañ koy sante mooy delloo ko fa ka neex mu ne fii ak yéen a ngi may sant danaa dolli seeni xéewal heure bu ngeen weddee samay mbugal day dana doon loo xam ne nii lu tar la ay yow jullit xamal ne bépp xéewal bu mas a jaar ci yow na doon daa jaar ci yow jàll amoon nga wëlbati ko ñàkk wéeroon nga wëlbati ko wéradi amoon nga tawfiix ak liberté wëlbati ko nekk ci xat-xati ki prison xéewal yooyee lu ca dem bàyyi la it du tee daañu la ko laaj yowmal qiyaama lépp loo ca deeyaale du tee daañu la ko laaj yowmal qiyaama gannaaw loolu yow jullit xamal ne xéewal gi gën a màgg gu yàlla subhanahu wa taala di may ab jaamam mooy mu daal di koy may lii di xéewalu diine bu sell xéewalu diine bu sell loolee moo taxoon mu yónni ay yenentam suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na ko yónni wu ma la lu dul nga nekk yërmaande ñeel jaam yi ay topp gi ñu lay topp da leen di jural yërmaande yàlla ci àdduna ak alaxira suñu borom it dolli ca ne yàlla day baaxe na xéewal ne julit ñi bi mu génnee ci ñoom yonente bu bokk ci ñoom muy jàng ci ñoom ay ab téeréem di leen sellal di leen xamal lan mooy lii di xikma ak sunna mooy sagesse donte ne dañoo nekkoon ci loo xam ne ni lu réer la ay mbokku jullit xéewal googu mooy gi gën a màgg gi nga xam ne moom la jaam mën a am ci kaw suuf dara warul tax nga weccee ko ak loolu dara ci àdduna warula ko yàqal bokk na it lu jullit war a gëm mooy xéewal googu de yàlla mataloon na ko ba yonent bi di dund sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu taxawee ca Arafat di tàggatoog jullit ñi mu wër ko téeméeri junni ak ñaar fukki junni ci ay sahaaba mu daal di leen di xutba xutbaam bu màgg ba yàlla wàcc ci moom ne ko bis na ki tey seen diina ji matal naa ko la nga xam ne mooy seeni xéewal mottali naa mottali naa ko ci yéen samay xéewal mottali naa ko ci yéen nii laa gërëme ngeen jaamoo ma ko mbokk wax ju réy joojee ba ko yàlla wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu delloo madina ay bis yu néew la ca teg daal di wuy ji boroomam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu waxoon na man day dinaa dem waaye danaa bàyyi ci yéen loo xam ne fii ak yéen a ngi ciy ngoy day du ngeen réer ba baa ñuy daje yowmal qiyaama ca mooy lii di téereb yàlla bi ak la nga xam ne mooy li nga xam ne mooy sama sunna looloo tax ba mbokk julit julit bi nga xamee ne nii xam na kuy boroomam diine yàlla ji lan moo ci taxawaayam mooy jéem koo jàng jéem koo jëfe waaye moytu kemtalal kattanam lépp loo xam ne dañ koo xamal ni gannaaw bi fi yonent bi alayhi salaam jógee lañ ko sos mbokk julit képp koo xam ne sos na façon jaami wunu yàlla di ca woote gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kookee mbokk julit gëmul ne la yàlla waxoon am na yàlla ne woon ne diina ji mat na mu ne déedéet yàlla diina ji matut wala boog dafa jàpp ne ah kay lii ma ci dolli yàlla waxoon yàlla joxoon na ko yonent bi yonent bi moo ko jottaliwul xeet bi mbokk ñaari musiba yooyee jàpp naa jullit du ca dal ca benn looloo tax ba jullit da ngay gëm diine day mooy la yonent bi jàngaloon ak saxaabaam la yonent bi jàngaloon ay saxaabaam saxaaba ya dund ca jox ko taabiin ñu dund ca jox ko génération yi ñëw ba ñun ñi nga tombé quatorze siècle yoo xam ne nii diine ji di tuxu jëme ci ñun mbokk loolu mooy diine amma li nga laaj waaw doxalin bii ñu ne la juumoo ko sos kañ la y a un siècle y a deux siècles y a trois siècles te fekk diine amoon na mille ans jiitu loolu ngal la waay yow mi borom xel bul boole loolu mukk ci sa diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di moytuloo lépp loo xam ne dañ koy sos sama gannaaw lépp lu ñu sos sama gannaaw loolu biddaa la te bépp biddaa ak réer la te bu la yàlla jéggalul sawara moom nga jëme ak moom loolu ma tax ba ngalawaay nañ góorgóorlu gëm ne diina matoon na te ba yonent bi alayhi salaam di dund ngeen boole ci it gëm ne mbokk benn diine moo am ci kaw suuf boo xam ne yàlla gërëm na ko bépp kuy woote woo fa beneen façon jaaminu yàlla na doon yahud la wala nasaraan xamal ne mbokk mi ngi ci njuumte su dee sa mbokk la sa dëkkandoo la nga la waay woo ko layu ko biir xamal ne ko benn diine la yàlla saxal ci kaw suuf naam diine yahud fekkoon ne fi ay diine folli leen diine nasaraan ñëw folli diine yahud bi diine lislaam ñëwee la folli beneen diine bu dul boobu képp koo xam ne yëng nga ne yàlla yónni ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare toppaloo ko amoo benn ngant ci ne da ngay jaamoo yàlla leneen ndax loolu yàlla du la ko nangul te yowmal qiyaama da ngay bokk ca la nga xam ne dañoo perte moom la borom bi ni wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-axirati min al-xaasiriin ku jël beneen diine bu dul islaam kenn du ko ko nangul ci àllaaxira day doon ci ñi perte mbokk lislaam dafa am ñaari déggin déggin bu njëkk ba mooy jébbalul yàlla topp ko ca loolee da ngay gis moom la aadama alayhi salaam doon dund moom la nuux ibrahim mboole mi yenente loolu lañ doon dund ba ci isa bnu maryam gannaaw ba nag la suñu borom indi la nga xam ne moo tëj yenente yooyu mu tudd ko moom l'islam spécial te mooy li mu wàcc ci yenente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee dañ naan lii mooy ay yahudiya la lii ay nasaraan la lii mooy l'islam képp koo xamee ne nii duggoo ci l'islam boobee da ngay gis ne sa jaamu yàlla bokkutul yàlla subhanahu wa taala di considéré loolu moo tax ba gàllawaay nañu góorgóorlu jéem a bàyyi xel la nga xamee ne mooy xéewal gu màgg googee borom bi subhanahu wa taala jàngal ñu ñu daal di góorgóorlu xam ne suñu borom yàlla day nee na ragal leen yàlla na yàlla yeyoo ñu ragal ko ko ragal leen yàlla na yàlla yeyoo ñu ragal ko ko bu leen dee mukk lu dul da ngeen a jébbalul seen boroom loolu nag mbokk jullit ba ñu ko yàllay wax bu leen dee lu dul da ngeen jébbalul mbokk ragal yàlla gi du loolu nekk ci diine lislaam di loolu waaye lay mbir ma dëgg-dëgg mooy nga muñ ba dee ca ca it mbokk xam leen diine day yambar du ko def diine fulla moo koy dund diine ak njàmbaarte moo cay sax looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala daañu ne allazina yumassikuuna bil kitaab ñi nga xam ne dañuy moy ci téereb yàlla bi loolu moo tax ba rasul sallallahu alayhi wa sallam doon ñu wax ni jamono day mi ngi ñëw ña nga xam ne ñooy nar a téye sama sunna dañuy mel ni ñu ngëpp ca la nga xamee ni nii moom mooy xalu sawara loolee nag mbokku dirit da ngay gis ne mooy heure boo jógee bëgg a dund diine bu sell coono dikkal na la de yeddaange dana la jóge fu ne ay tëkku dana la jóge fu nekk xastaate dana la jóge fu nekk léeg-léeg te ña la gën a jege léeg-léeg say waajur lay doon léeg-léeg say doom lay doon waaye mbokk jurit loolu lépp yow jurit ngal la waaye muñal te xam ne loolu mooy aada yàlla ca la nga xamee ni nii mooy ci kaw suuf su ko defee mbokk diine lislaam day mooy mi ngi nii dañoo war a góorgóorlu jéem koo xam jéem koo jàng bañ a doon diine yi al toppe mooy judd naa fekk sama baay julit nekk naa julit fekk naa ko ci kër sàngam maa ngi kër sàngam laa wallahi mbokk julit suñu borom daa bëgg ci ñun lii di yaqiin yaqiin la koy mayee mooy xam ba jàng su ko defee xamal ni diine lislaam daa tënku ci ñetti mbir yu essentiel yoo xam ne nii yu munta ñàkk la benn ba mooy istislaamu lillahi bi tawxid mooy yàlla nga jaamu ko wéetal ko xam ne moom dong mooy sa boroom ñaareel ba mooy nga daal di topp la nga xam ne mooy ay ndigalam ca mooy la yonentam ba alayhi salaatu wasalaam indi woon ñetteel ba mooy nga daal di deñ ba mat sëkk képp koo xam ne nii dafa doon noonu yàlla safaanoo ak diini lislaam nga wone sax noonoo ci moom daal di den ci moom mbokk lii mooy la nga xam ne mooy base yi gën a màgg te mooy suñu diini suñu borom jàll waala ngir bëgg doomu aadama yi jàng seen diini benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na mbooloom sahaaba yi wër ko yàlla yónni jibril alayhi salaatu wasalaam mu jël melokaanu nit xuus ci mbooloo mi ba yegsi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël ay óomam teg ci óomi yonent bi ne ko yaa muhammad lan mooy lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jàngal ponk lislaam yi jàngal ko lañu war a gëm jàngal ko nañ ko war a sellale loolee mbokk ba mu demee yonent bi alayhi salaam ne sahaaba yi ndax kii doon laaj xam ngeen ko sahaaba yi ne ko déedéet mu ne kooku de mooy jibril daa ñëwoon ngir jàngal leen seen diine loolu mbokk muy wan wareef la ci képp kenn ci ñun mu jéem a jàng diineem wareef la ci képp kenn ci ñun mu jéem a fexe ba am yaqiin ci diineem gannaaw loolu itamit mooy mu góor góorlu ba ñaan yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ni nii ak soppite ba ñu dugg ci moom e yéen mbokk jullit xam leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ne woon na lislaam bi muy commencé daa commencé ca la nga xam ne moog ay tumuranke waaye bala àdduna tukki lislaam dana mujj nekk tumuranke ay tumuranke xatta ci biir jullit ñi islaam day tumuranke ci ñoom loolit moo tax ba doomu aadama bi war a góorgóorlu kéemtaleen kattanam jéem a xam diineem na doon góor wala jigéen jàngal ko njabootam waaye it jéem a sàmm pas-pas boobu jéem a taxaw ci loolee ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala wërsëgal leen ñu dajeek ñoom ci loolu mbokk julit ñu ngi dund ci jamono joo xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla xamaloon leen ci kumpa waxoon na ko nee na góorgóorlu leen ci lu baax xam leen ne fitna mi ngi ñëw sama gannaaw fitna boo xam ne dafay mel ne daggatu lëndëm gu daggatu guddi gu lëndëm këriis ay guddi gu lëndëm këriis kenn dootul xàmmee lu baax ak lu bon nee na da ngay gis benn waay bu xëy nekk julit balaa ngoona mu nekk bu yéeféer nga gis koo xam ne mi ngi fanaane jullit balaa subaa mu nekk yéeféer day jaay diineem ci alalu àdduna boo xam ne mu ñàkk solo bi loolee mbokk jullit tey ji boo xoolee la ëpp ci doomu aadama yi jël nañu intérêt àdduna teg ko ci kaw ngërëmal yàlla ña nga xam ne ñoom la ñu tudde woon ay sëriñu diine nga xam ne ñoo waroon a woon nit ñi moytuloo leen la nga xam ne mooy àdduna xiirtal leen ñu jëm seen boroom jël nañ ñooñu nga xam ne dañ leen a gëm yaakaar ci ñoom yàlla def leen la nga xam ne mooy fonds de commerce duñu leen wax lu dul seen bopp seen maam seeni baay ngir ñu gëm leen ba jébbal leen seen bopp jébbal leen seen alal jébbal leen la nga xam ne mooy seen njaboot ngiree lan ngir àdduna la ëpp ci doomu aadama yi tey jii da ngay gis lay priorité ci ñoom ndax mooy xëy ut ngërëmal borom bi laa lay priorité ci ñoom mooy nu ñuy def ba réussir ci àdduna bi ak fuñ ko mën a jaaree na doon ci sport ba la politique bi la na doon ci syndicalisme la na doon ci lu mën a doon yonent bi alayhi salaam mu ne yabiu diinahu bi aradin min addunya day jaay diineem ci loo xam ne nii lu néew la loolee ñu bàyyi ci xel suñu kemtalal kattan gannaaw loolu mbokk julit xam leen dafa am benn réalité boo xam ne bu leen ci gëm seeni bët am nañu noon bu màgg muy seytaan bu ñaan yàlla mu may ko mu dund ba ilaa yawmi diin lan mooy jubluwaayam mooy fexe ba kenn du jaamu yàlla ci kaw suuf seytaane boobee am na benn armée bu rëy boo xam ne mooy yéeféer yi nekk ci kaw suuf ñi ngi fexe guddi di fexe bëccëg ngir jullit ñi génn ci seen diine borom bi mu ne waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawaa yéeféer yi bëgguñu lu dul ngeen doon ay kéeféer comme ñoom ni ñu nekk ay yéeféer su ko defee ngeen yeg ngeen yem képp lii mbokk moom la ñuy tuddee les droits universels moom la ñuy tuddee la nga xam ne nii mooy ay ay ay ay point de mire ca mooy jubluwaay bi gën a màgg barrage bi tee ah nit ñi déggal kéeféer mooy lislaam nañu fexe ba jëlee ko fi loolee bàyyi leen ci xel bu baax suñu borom waxoon nañu ko depuis quatorze siècle borom bi mu ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataau wa man yartadid an diinihi wa huwa kaafir fa ulaayika xabitat acmaaluhum fi dunya wal axira xam leen ne yéeféer yi du ñu deñ suñu borom mu ne wala yazaaluun du ñu deñ mukk plan bu échec ñu génne beneen plan ngir bëgg a ngir ngir jëmale ko ci jullit ñi fexe ba génne leen ca la nga xam ne mooy seen diine fexe ba yàqal leen la nga xam ne mooy seen diine gannaaw ba nga xamee ne nii xam nañ ni diine lislaam kese moo mën a baare la nga xam ne moom la ñu bëgg ca mooy seeni bànneex kese di dox ci kaw suuf loolu nag boo ko xamee yow jullit da nga war a fagaru benn ngoog nga góorgóorlu it la nga xam ne mooy sa njaboot njaboot googu nga xam ne yàlla dala koo dénk te yowmal qiyaama yàlla dala koy laaj suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ay yéen jullit ñi fexe leen ba bu leen dem sawara fexe leen ba bu seen njaboot du dem sawara ay loolu mooy lan mooy fexe leen ba ñee di woote jëme sawara muy yéeféer yi dox leen seen njaboot seen digganteeg loolu ay yéen mbokk jullit tey benn yéeféer solotul dàllam di dugg ci kër jullit ñi xanaa lu dul lu néew ci ay témoins de Jéhovah waaye yéeféer yi ña nga nekk fa ñu nekk ci États-Unis fa ñu nekk ci Europe fa ñu nekk ci Asie di lancer la nga xam ne mooy seeni xalaat ca la nga xamee ni nii mooy suñu doom yi la nga xam ne mooy suñu soxna yi ca biir kër ga ca biir lal ya ca biir lëndëm ya ña nga nekk en contact direct ak la nga xam ne mooy lay xew ca yéeféer ya loolee benn màbb seeni jikko ba nga xamee ne lislaam duñ te dese lu dul xëy na ñu ngay julli waaye mboole mi jukko ya mboole mi pas-pas ya day doon la nga xam ne mbir yéeféer mu am yoo xam ne ni nag moo ci gën a grave bokk la nga xamee ne mooy yéeféer yooyee daañu fekk ay nit ñu doyee di ñu ñàkk solo ñu dooleel leen jox leen ay fonds bu ko defee ñuy woote jëme ci réer loolee mbokk ndax suñu réew mucc na ci la wallah ana ñaati nit ñoo fi nekk ne dañuy woote ci turu lislaam ba gur gur ay junni junni doomu jullit yu daan julli daan woor ñu xëy xëy dox seen diggante julli ak woor ndax ne leen lii di nga xam ne mooy ak cant moo gën a màgg julli ak woor ba nga xam ne julleetuñu wooratuñu ana tey lan la ñuy gis loo xam ne suñuy maam ak suñuy mamaat ñépp xamoon nañ ko ne day yàlla moo bind góor moo bind jigéen ca it suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa def góor mooy responsabilité di jiit ci wàllu diine tey la ñuy gis ay dund ci suñuy doom dem di raamal ay jigéen yoo xam ne nii seytaane la ñu mbubboo lépp lu yàlla subhanahu wa taala xaraamal ma nga ca ñoom ñu jël leen def leen la nga xam ne mooy des références di leen wane ci seeni tournée de par le monde xale yu bëri jàpp ne lii kat fii aw yoonu muccukaay la mbokk nga la waaye góorgóorlu leen ci seen njaboot góorgóorlu leen ci seeni doom góorgóorlu leen ci seeni sët sa doom doonoon ko gaano ko paralysé dee ca prison ba moo gën mu dem di dugg ci pas-pas yooyee nga xam ne mbokk dundug àdduna léegi mu jeex la ñuy xaar moom mooy allaxira te bu ñu fa demee duñ ñu laaj ma samba wala duñu laaj ma demba li ñuy yàlla laaj mooy alquran ji mu wàcce woon ci ñun lim ñuy laaj mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wàcce woon ci ñun loolee ku ne ci ñun war caa bàyyi xel moytu leen moytu leen mooy musiba bi gën a grave mooy doomu aadama ñàkk pas-pasam doomu aadama ñàkk diineem te xam leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xam leen ne xol day dafa gaaw a wëlbatikoo ni kat dër di wëlbatikoo yow ma te defoon say ñeppe wala say ceeb na muy bax di wëlbatikoo xol noonu la gaaw a wëlbatikoo looloo tax la nga xam ne mooy sahabatul kiram ak nit ñu baax ñu jiitu woon lañ gënoon a ragal gën koo ragal seenu njaboot mooy yàlla subhanahu wa taala wëlbati seen xol looloo tax suñu borom yàlla sant ñu ak ñaan gu mag te mooy rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana ay yàlla yàlla boo wëlbati suñu xol gannaaw ba nga xamee ni nii da ñoo jubal yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ka gënoon a sell ngëm ci kaw suuf ka gënoon a dëgër ngëm ci kaw suuf bokkoon na la bëri woon ci ay ñaanam allahuma ya muqallib al qulub sabbit qalbi ala diinik ay yàlla yow miy wëlbati xol yi yàlla na nga saxal diine yàlla na nga saxal sama xol bii ci diine lii mbokk bañ ko yonent bi wax daf ñuy jàngal lañ leen waxoon ci ca njëlbeenu xutba ba la gën a màgg yow jullit la nga war a ittewoo nekkul loo xamee ne nii sa alal la wala loo xam ne sa wér gi yaram la waaye la nga war a gën a ittewoo mooy nooy def ba xam sa diine ci pas-pas bu sell waaye nooy def ba xamal ko sa njaboot waaye nu ngeen def yéen ñépp ba sax ci loolu mun ci loolu ba mucc ci fitna yi ba mën a texe àdduna texe àllaaxira ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla may diine ju sell yal nañu yàlla xamal suñu diine yàlla muy wëlbati xol yi yal na saxal diine ci yàlla na saxal suñu xol ci diinim ji ba baa ñuy daje ak moom yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu ragal ko nam ye yow ñu ragal ko ko yàlla bu ñu yàlla faat lu dul fekk na ñu jébbalul ko yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu jébbalul ko yàlla na yàlla wërsëgal suñu njaboot jébbalul ko yàlla nañu yàlla boole ak njaboot gi ca àddinay firdawsi l aala allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin